Euh, liggéey bi ñu nekk nag muy bâtiment bi nekk suñu ginnaaw mooy bâtiment bi nga xam ne Touba Ca da ko jëloon jaayante ko euh, def réalisation bi euh, xam naa damay wax rek ci wàllu technique bi su ko defee suñu suñu ginnaaw dañ na wàllu réalisation bi am na yoo wàllu technique bi bâtiment bi bokk na si bâtiment yi nga xam ne moom la ñuy wax majalis muy bâtiment boo xam ne R plus 3 la rez de plus 3 niveau fait niveau bu nekk am na salle de classe euh, ñetti salle de am benn bureau am ay toilettes euh, ak euh, dégagement boo xam ne mooy tax circulation bi horizontale circulation verticale bi aussi am na cage d'escalier boo xam ne dafa àndaale box cage d'ascenseur te boo ko boolee lépp surface utile bi ñu ngi toll ci deux mille deux cent cinquante mètres carrés répartis sur comme ni ma ko waxee sur quatre niveaux bi ñu koy tàmbali tamit. dañoo ñëw fekk lépp lu nga xamante ni moom mooy tënk projet infrastructure rawatina bâtiment nga xam ne mi ngi tàmbale ci phase de conception bi nga xam ne architecte moo koy def euh, étude technique yi nga xam ne mi ngi commencé ci gros œuvre bi bureau d'étude moo koy def def euh, plan béton armé yi def étude géotechnique bi loolu yëpp dañoo fekk mu am euh, étude yoo xamante ni unité de projet bi nga xam ne suñu maam Thierno moo ko suñu maam Thierno Mbacke mu suñu Fabrizio moo ko jiite ñoom defoon nañ ko léegi nag Touba Ca Kanam ba mu ñëwee laaj liggéey bi dañoo dajaloo ñu jox ñu plan yooyu ñu saytu plan yi daal di tàmbali liggéey léegi nag ñoom seen supervision la nekk ñu xaatima ñoom benn convention boo xam ne mooy wane ne lépp loo xamante ni ñoom définir nañ ko comme norme bu ñu war respecté si université bi danañ ko respecté noonu lañ doxalee tàmbali benn entreprise teg ko fi muy saytu entreprise boobu mu nekk ñaari niveau de contrôle benn bi mooy contrôle interne bu ñu ñu entreprise bi defarlee ba pare ñu contrôler suñu bopp ba pare nag daal di woo bureau de contrôle bi nga xam ne mooy valider pour ñu mën a jàll si beneen phase ñu defee loolu nag Euh, euh, di continuer di kon ba gros œuvre bi jeex gros œuvre bi mooy jëmmi bâtiment bi nga xam ne euh, ciment la beton ak fer ba mu lépp daj ñu doog a tàmbali nag yeneen corps détail yi mooy carrelage électricité plomberie ak yëpp loo xamante ni bâtiment da koy laaj ba ci électricité bi am courant fort courant faible ba ci caméra de surveillance ak yëpp bu Touba ca kanam li muy livré li muy bu complet la boo xam ne yemul sax jëmmi bâtiment bi kese mais da ñuy wax clé en main dëgg dëgg dëgg Touba ca na ko romb sax clé ndax Cléamé jëmmu infrastructure bi kese ngay joxe donc romb na euh, Cléamé parce que après équipé waat na ko bureau yi li fa war a nekk ak lépp te xam naa ne dana gunge aussi ci ci ci ci niñ koy gis nañ ko ba fii ni mu meloon yaa quelques jours bi ñu ñëwee war a def inauguration bi gis ngeen niñ ko setalee nga xam ne daanaka def nañ aménagement donc liggéey bu mucc ayib la boo xam ne tegu na ci norme yi mu war a tegu te tamit Touba Ca xam naa lii def ciy wane rek ne liggéey infrastructure amul bu ko të ndax ñi ci nekk nga xam ne ñoom ñooy gis réalisation am nañ expérience bi am nañ liggéeyar bi waaye tamit si seen ginnaaw tamit am na collège d'ingénieur boo xam ne ñoo nekk seen ginnaaw coût réalisation bi aussi euh, cinq cent vingt et un la cinq cent vingt et un millions la te loolu tamit xëj na euh, rigueur buñ ci buñ ci def ak tamit ni ñu ko saytoo moom moo tax waaye ba ñu koy démarré ku ne xamoon na ne ñu ngi ko estimé woon ci ay huit cent millions waaye nag lépp loo xamante ni euh, lu ñu waroon a jëggaani fenn la dañ ko jaay dañ ko jaayandi suñu biir ndax xam ne tey bu ñu leen doon fay ñu ngi nekk di leen di leen eh, joxe ñenn condition yi nekkee yëpp kon mën na am sax mën na romb loolu waaye nag jaayante moo ci feeñ donc mooy wane ne rek loolu noonu renoncement bu am la si nga xam ne ñoo ko doon ñoo ko doon taxaw ndax kenn ku ci nekk ku ne xam na ne structure bu mel nii boo ko naree taxawal li muy laaj ci ay condition ak ni ngay nekk mais ñoom dañoo jaay seen guddi seen bëccëg ak seen lépp donc def ko ci donc loolu daal mooy si succès bi waaw disposition yi ci war a jël jël nañ ko ci waaye nag comme dafay bâtiment boo xam ne dafa nekk si benn comme ne wax benn entité la si biir corps boo xam ne eh, fi Euh, bâtiment bi jëm bâtiment bi boobu lépp loo xamante ni prévoir nañ ko ci wàllu plan nga xamante loolu unité de de projet na ko léegi tey bis ni nañ ci caabi yi bu suba comme ni ngay sëñ bi si joxee boo xasee jébbale rek li ci des nag moom ñoom ñoo ko yor te ku ne gis na suñ amul borde bi ni mu ko waxee ñoom xam nañ usage benn lañ ciy atul salle de classe yi kan moo seen liggéey la ñoom léegi nga xam ne moo jëm ci wàllu sécurité nag bu dee sécurité interne bu bâtiment bi jël nañ ko sécurité bi nga xam ne moom la bokk nag yeneen bâtiment yi loolu moom incha allah yaakaar naa dinañ ko jël fii. waaw durée travaux bi nag xam naa ne boo euh, xool daanaka euh, trois ans mais ci trois ans yi loo xam ne mooy bi ñuy doog a tàmbali liggéey bi dafa tàmbali rek mbas bi commencé mu amoon ay yu bëri ci wàllu dem dëkk dikk bi ci wàllu yooyu léegi nag moo taxoon nag euh, xëy na mais mënoon nañu ko waaye nag gis tamit yi mu fi tàmbali ndoo yi ko ñi ko yi ko njëkk tàmbali ak ni mu teelee pare ku ne xam na ne kon Touba ca def na ci forcé ndax ñun cinq cent vingt et un millions yi moom mooy réalisation léegi nag équipement yi nag am na si yoo xam ne sax xëy na bureau yeeg yooyu loolu mën naan sax yeggul waaye lépp lépp daal lépp loo xam ne si bâtiment bi laa gën a gis incha allah loolu